waa kii dama koy sant di ko gërëm question yi ma posé yëpp bii rek ma si ñor bii rek ma si ñor bii kese maa ngi lay sant bu baax de la gërëm bon pour ma wax ci problème mu Père Ba dafa yobbu Père Ba mën nga ko peinture Cameroun peinture ko ay Venezuela feneen waaye du ci réew mi bu amul preuve rek baaxul bi ak en 92 mooy daal photo yi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 waaye ku taxaw faas ne man ña lekkuma si ñàkku peer ba wallaay gore woo ba ci regroupement Gris Bordeaux bii passé Gris Bordeaux Balla Gaye 2 xëy na Gris Bordeaux xaalis bi egsiwul ci moom mais biñ jàllee ci ginnaaw lan ko jox bari na de walla mu jox Moustapha Gueye bari na de musul jàppale mbër am na fi Gris Bordeaux combat mu bëre jox na ko mille liquide entraînement jox bindal ko chèque suuf si chèque baa ngi foofu noonu. lu amul preuve rek baxul lu amul preuve rek baxul man coow li muy beuri beuri bëri yëpp père mo moon waxe kérok ci situ sa way buur géwél père ba daf ma mere deux jours ne ma wax loom la bul wax amo lo wax da nga am combat dama nga entraîner bu père musul faral fas, père ba mbey gay toog na sama tuddu bi mujj tudd mbey gay toog na Modou Lo tok Moustapha Gueye tok mu ne ko mbey gay musuma la faral man séeréer la faralone Moustapha Gueye suma laa faral séeréer laa faraloon ne ko Modou Lo yow mi toog nii mësuma laa faral mais dama mës nangu sa champion waaye Modou Lo loo takk ma takk ci ndax man sama doom yi laa am Papa Sow ak Ousa Ousa mu yóbbu Père ba Fass